kilifa kër je demande à tout sénégalais patriote ngeen abonné ci Senclic tant que ñu ngi wax dëgg nekk ci côté askan bi jaa jëf